naka nga xalaatee problème bi ak ko xalaate ak yow lan mooy sa ressenti ci problème bi tamit. Euh, Cheikhou euh, sama xarit la. Mm-hmm. sama sama papa la parce que papa sax laa koy laa koy wax donc relation bu baax moom laa mës a am ak moom. Mm-hmm. Euh, quand je l'ai vu quand je l'ai vu pleurer. ouais. voilà voilà ça sama ça m'a ça m'a ça m'a parce que depuis bi ma xamee Cheikh ba tey depuis bi ma ko gisee mu mu mu nekk dans le milieu euh, du théâtre dans le milieu du cinéma musuma ko gis mu def réplique ouais. donc su demee ba def euh, réplique c'est parce que euh, touché nañu touché nañu honneur am mm-hmm. na mais euh, juste que c'est des choses qui arrivent euh, nit boo siwee tu tu tu tu t'attends à tout Mm-hmm. que mën na nekk positif comme mën na nekk négatif mais mm-hmm. hauteur moom moo koy euh, grandeur moom moo koy gérer donc c'est pas que tooñ nañ la automatiquement da nga da nga da nga war mais nit bu ci nekk aussi ak sa ak ak degré fi nga fi nga mm-hmm. fi nga parce que ku ñu laal sa laal sa honneur nga nga réagir donc voilà euh, no problème am na on va dire donc moom il a voulu montrer aux Sénégalais que dañ ko dañ ko tooñ parce que c'est pas lui qui a parlé mm -hmm. donc le message passé ouais ah, on est de tout cœur ak moom ouais <laughs> loolu dëgg la yow moom soo parce que mën na wax ni que soleil levant famille la nekkatul euh, mm-hmm. troupe kese théâtrale maintenant c'est famille mm-hmm. Mm-hmm. mi noon noonu c'est une famille du troupe moom moo ñu boole. Mm-hmm. parce que tey même su fekkente ne bu bu dul bu dul théâtre bi tey euh, dañuy gisante dañuy waxtaan dañuy mm-hmm. wootante téléphone. Mm-hmm. voilà donc euh, man ak ñoom c'était avant. c'était avant le c'était bien avant le théâtre saa date. donc du théâtre moom moo ma booleeg moom on est on une famille. ñeneen ñi nekk biir yëpp aussi c'est la même chose entente bu baax la ñu am suñu biir. dëgg la. ay ta del déglu del Dakar site bi Dakar yaa ngi Feeling Dakar nga am ngi Feeling